xarit suma mag suma doyen maa ngi lay ziar. maa lay delloo ziar maam lees di la jox sa wàccuwaay bu wér a wér. waaw boo gisee lu tax ma ñëw fi dañoo war a wax ci diggante combat Boy Niang ak Lac xam nga semaine bi moom li gaa yi wax rek lu waay amatul ba léegi dootoo ko am Cheikh may laaj combat bi noo leen ko préparé ak bis bi wàccuwaay bi la tëral noo leen koy waajal. waa lees je crois que looy préparé huitième mois bay dugg si neuvième mois soo parewul war nañ la ko laaj ñetti phase la woon benn phase bi commencé woon nañ ko fii deuxième phase bi mbër génn na dem na Japon jóge Japon dem fi nga xam ne mooy France si ñu ngi woon si troisième phase bi fi mu toll pare nañ fi mu toll ay assouplissement ngay def rek ay ay long et doux jël leçon jeex na fi mu toll pare nañ samedi rek la ñuy xaar incha allah. gis nañ Lac de ci combat am yëpp mu mel ne kuy jéem a waaxu booy bi jéem a dox ci maayinam maanaam loolu mooy damay indi sama système bopp loolu nag ñu leen laaj ba xam combat boobu yow en tant que préparateur physique yor booy ñaa ndaxam yéen a nga may xel loolu de. waa lees xam nga souvent dañuy wax ne kenn du préparé pour dem guerre di wax say kile mais li ma la mën a xamal si gàttal mooy làmb ñaari nit a koy def. dañoo fay booy Niang xaalis fay la dëgër xaalis mu dem préparé ji ñu dem préparé ji je crois que ku nekk boo defee li nga war a def samedi fii nañ fi gis combat bu neex si kàttanu yàlla. yaakaar nga ne combat bi dana métti lool de. xam nga combat nee nañ da ngay séentu mu yomb lool mu ñëw jafe lool nga ñëw séentu mu jafe lool mu ñëw yomb lool. Souleymane maa ngi lay ziar Jules. maa ngi delloo rek. dafa am lu ñu lay laaj. diggante combat Lac de ak combat bi maanaam si lan mooy sa xalaat ak wàccuwaay bi nan ngeen ko préparé yéen waa Pikine te jege Boy Niang. waaw lamb ne si ju neex la lamb ju am lamb neex la lamb ji amateur yi yaakaar lamb ji day dépassé foofu waaw lamb neex la ñaari attaquant lañ day attaque attaque bi day attaque bi day bëri si waaw combat bu neex la. gis nañ Lac de Guiers yokku maas Boy Niang ku ko xam xam na c'est un féroce Jules combat boobu yaakaar nga ci mu am xeex bu metti yaakaar nga ci mu am bëre bu tar. moom dina am xeex bu metti dina am bëre bu tar waaw ñu ne ku nekk rek xas nga sa morom ku nekk mere nga sa morom mere boo xam ne ab suuf la day dalante. ku nekk am na loolu dencal sa morom. waaw waaw amateur nañ teel a ñëw si lamb ji rek. jërëjëf incha allah jërëjëf. di salaamaaleykum. dafa am combat bu ñuy dëgtal. diggante Boy Niang ak Lac de Guiers 2 ngay suma mag di suma xarit. nekk ndaanaanu lamb. Lac de Guiers 2 du mbër muy dem wala buy dem tamit am lu wóor loo xam ne moo tax muy dem booy Niang dalay nax da lay touché reculé nga def fekk ko mu dajeeg yow est-ce que Lac nangu loolu bon yàlla xam mais lamb ji daal li ma mën a wax mooy yi ñu wax ni du am mun na jeex nag si avertissement mun na jeex si avertissement. yaakaar nga ko. yaakaar naa ko mun na jeex. yaakaar nga du am xeexu. waaw mun na nekk mais ragal naa mu jeex si avertissement. wala nga xam ne ñu jeexe comme ni mu neexee amateurs yi loolu moom maa la ko garanti tey. jërëjëf Amadou. waaw maa ngi lay ziar naa la ñoo sant bu baax. naa la yaa nax nga ma nax nga ma nax nga ma. jërëjëf waaw ana xaalis drapeau chef de l'état bi. salaamaaleykum suma mag suma xarit. maaleykum salaam suma xarit suma doom day maa ngi lay laaj nag benn question ci diggante boo Niang Lac de Guiers en tant que entraîneur Lac de Guiers 2. Ah. ak préparation bi ni ngeen ko préparé. ak combat bi le 13 juillet di samedi noo leen préparé combat ak bis ba loo leen ci waaj comme ci waay waaw mooy li ñu wax rek ñun waa Géejawaay dañu ñëw yéen yàkkamti ñu. te boobu dafa duggoon Géejawaay mu am nu mu fa demee. yàlla dogal Géejawaay yëpp mobilisé. ñëw topp suñu ginnaaw. kon ñun war ñu def pot. lii yoon rek mooy ñëw bëree fula ak fayda jàpp waaj daan ko ñibbi incha allah bi loolu rek mooy solution bi du leneen te ñu ngi ciy ñu ngi liggéey te gëm nañ ko incha allah Euh, dama gis na Lac de communication bi yëpp dafa mel ne ku xaw a énervé boppam tuuti bëgg a corriger booy bi te booy bi boo ko corriger dafa mel ne ay jeu de dame di calculer mbaa loolu yéen a ngi koy sóoraale doon. mais d' accord Lac de Guiers moom boppam. Uh-huh. Lac de Guiers dafa kilifa am ay njiit moom boppam moom day jox xalaatam jox suñu xalaat. mbaa yàpp ngeen ko daal. non dëgg la ne day jox xalaatam jox suñu xalaat. moom ñoo ngi lay sant waa waaw merci jërëjëf. di la bu baax jërëjëf. mu nekk ci écurie Mor Fadam. bokk ci kàngam yi doyen Lac de ak Boy Niang en tant que ndaanaanu lamb en tant que doyen ci lamb noo gisee combat boobu. non combat bu neex la. Mhm. combat bu jaadu la. Mhm. Lac de def na lépp lu mu war ci lamb ndaanaanu lamb yëpp bëree naa ñoom. Boy ñaa nekk xale boo xam ne daa nekk ci yoon. def ay preuve la Lac de tàllal ko loxo. may ko sens pour ñu bëre. loolu ñëpp nangu nan ko. mais dama bëgg mu xam ne Lac de Guiers 2 géejawaay dañ koy yónni yàkkamti ko te combat bi waa géejawaay ñoo ko soxla ba pare yëpp Lac de Guiers numéro 2 à ma façon am neneen nun ko yebee ndax combat la boo xam ne nii gars yi toog nan réunion nan waxtaan nan ñëpp a ngi si ginnaawam te combat bi moom am na lum ko jaral la de am 2 en personne moo ma wax ci gémmiñam Tapha combat bi am na lu ma jaral am na fu ma ko teg te bu ma ko waxoon te jëfewu ko du ma neex mais li ma wax damaa gis mu jëfe ko entraîné na lu ñu toll jox na bis bi cër te mu ngi déglu tamit am na loo xam ne moom moo ko moom am na loo xam ne ñun ñoo ko moom day jël xalaatam teg ñu jël sunu xalaat teg ñu waaj ñëw euh, samedi soreetul fii ci stade bi lay amee. nekk ndaanaan nekk kilifa nekk ancien lutteur. Aymerou diggante Lac de Guiers 2 ak Boy ñaa noo gisee combat bu Aymerou vite fait rek. ma gisee combat bi mooy combat bi. waaw mag mu bëgg ratifié la boppam ndax dama jógee ci combat am ca combat bu am coow coow te dara mu loo. Boy bëgg ñëw xàll yoonam pour ci mën a jot ci yeneen mbër yi. waaw. Boy Niang 2 dafa sonal waa Guédiawaye. dëgg dëgg dëgg la. daan fa lees 2. waaw daan fa ay ndaanaan. daan fa Sa tey ñu jox ko Lac de ay meenu. waaw loolu ndax du yéen bu diis si parce que li mu war a li a effacé dafa bëri diis na moom trop waaw. jërëjëf Ayme jërëjëf. maa ngi sant bu baax jërëjëf sama jërëjëf jërëjëf. waaw siyaar nañu garaaf yi. Euh, Tidiane gëj naa laa gis. waaw maa ngi fi bilaay maa ngi fi. Tidiane dak entraînement yi. ñu ngi si kawam bu baax ñu si kawam bu baax. Euh, Tidiane dafa am bés bu rëy bu ñuy waaj a dëgg mën ci kanam. muy diggante booy ñaa ak Lac de Guiers. Mm-hmm. combat boobu lañ bëggoon tuuti sax xalaat ak sax xam-xam ak sa maturité bi nga am ci làmb ba xam combat boobu noo ko gisee. waaw làmb la nag boo xam ne neexul pronostic quoi parce que ñoom dañoo bokk bëre parce que ku ku ne da am ay tactique yooy def sooy sa combat. en tout cas daal li may conseil ñoom ñaari mbër yëpp moom mooy booy Niang bu dee bëgg naa yéeg dina am lu mu prouver pour yëg bu nekkee ne la de li muy wax ni nii nii ci signature yi ak ni mu gis ni ma gis chaque jour mu koy arñee bu ko yóbboo làmb ja euh, ragal naa dina am mbetteel maanaam li mu bëgg a waaxoo booy bi ngay wax ne maanaam bu ko naree def dana ci am bette. non bu ci ni muy waxee quoi da ngay dégg muy waxee fugg. te laama ji loolu noonu. waaw xadar bi man loolu laay wax chaque jour mun na am mbetteel si combat bi. ndax li may wax chaque jour moom ñaar si laay wax rek. mais du jéem a dox ci maayanu booy bi rek. waaw mën na nekk nag parce que la dëgër moom mbër mag la. waaye tey daal ki nga mooy booy ñaar nekk mbër mu ndaw moom moom a prouver pour dem waaw man jërëjëf Tidiane jërëjëf gën a xam maaleykum salaam ne ko ren na nga def waaw sant yàlla bu baax a baax ren daa mel ne xaftaan bi tooyul de non tooyul kay tooyul moom waaw dafa am bis bi rëy bu ñuy bu ñuy dëgmal muy diggante Boy Niang waaw ak Lac de Guiers en tant que pratiquant en tant que lutteur mhm. ñu lay laaj ba xam bis boobu noo ko jàngate ak noo ko gisee ma ah, bés boobu moom bés bu mag a mag la sax bés bu mag a mag boo xam ne combat boo xam ne ñoom ñaar ñëpp la amal avantage mhm. parce que Lac de Guiers wàcc te Boy Niang daa bëgg forcé yéeg loolu la moo tax combat combat bu neex la quoi combat bu neex la. combat calcul la. Mhm. wala combat boo xam ne Lac de Guiers bi ñu ko gisee ni muy waxee. mel na kuy jéem a waaxu booy bi. est que loolu mën na nekk. wala loolu bu ko préparé combat ba xam est que noonu la ñëwee ak fukk wala bëgg a dox ci maayanu booy bi. waaw mun naa ne combat calcul parce que Lac moom bu fekkee booy ñaa loolu Lac di wax la bëgg a toog da koy nax. Lac de Guiers nekkul mbër boo xam ne dañoo préparé day wax lu ko neex rek. te booy ñaa ne day jaay mais boo xoolee technique man su ma doon joxee technique kii jox booy ñaa moo gën a technique mais Lac de Guiers moo gën a nakare bële si làmb ji waaw ñu lay laaj Lac de boobu nan nga ko jàngatee ak nan nga gisee préparation ñaari mbër waaw dañuy sant yàlla bu baax d'abord julli ci yonent bi sant suñu wayjur sant suñu sëriñ Cheikh moo Gueye di sant waa Géejawaay gi yëpp di ñaanal suñu papa Mor Faram fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee di ko ñaanal bu baax barki borom Tuubaa combat boobu moom am si ndam ji ñëw géejuwaay wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla par préparation moom xaw ma si dara wax dëgg yàlla.